gënee nimba dimbali ci nit ku yalla mo koy fay nimba fu mu dekkee aduna bi ñàkk waratu feeraay solidarité la ñu bëgg mu sax ñun suñu bi ando tagante la fa jàppoo Solidar kama solidarity yeah. alala jango mudemaro leti kanyong kanu solidarity all for one one for all kabuli di nyonna ina di solidarity Ali kalonkombe mukilineti alinangata watolesita silolesita kairabas

ta oh en toi en moi dina monsieur le préfet dañu bëggoon présenter film documentaire au cercle autour de la solidarité depuis 2014 xam naa ni sax temps bi yëpp di ko xaj bu commencé ba ci kanam ñu avancé ko avancé waat ko pour ñu mën a ko visionner très rapidement mënoon dugg ci joxe fourniture yi ak arrondissement ñu ngi leen di sant di leen gërëm lu sori mais pas de bi aussi pour wax ci jéego yi en tant que parti boo xam ne di dund ay jéego yi nga xam ne ñoom teg nañ ko donc moom nañu fexe reprendre pour def de telle sorte que képp ku ko wala nga xam fépp fa teg sa tànk pour mën a saxal

l'écrivain série Aziz une première sortie qui marque le début de la carrière littéraire de l'auteur. Pas de vie, c'est également une production poétique. Et la seconde partie, les hommages, de tous les âges. Donc c'est là où on est nécessairement de donner des leçons de morale. Donc c'est là où on essaie nécessairement... pour marquer une première sortie pour tous les âges, des hommages aussi. Avec pas de vie, c'est c'est-à-dire c'est ce qui souffre dans la vie. On ne peut pas aller vivre aussi pour essayer de On ne peut pas euh, se garder de juger les gens ou bien simplement de... de, de, essayer d'éclairer les choses qui nous sont qui m'a aussitôt séduite, d'autant plus que ces jeunes très courtois et engagés avaient la même vision que moi pour accompagner les populations de Kébémer et c'est ainsi que j'ai accepté d'être la marraine de l'association. Après la cérémonie de dédicace, nous sommes aujourd'hui dans celle de distribution de fournitures et d'enrôlement dans la CMU. Et à cette occasion, je voudrais transmettre des messages aux élèves aux parents et aussi aux enseignants. Aux élèves, je le disais en couverture de page, des cahiers que la vie est un long chemin parsemé d'embûches, mais qu'au bout de l'effort, c'est la réussite. Chers enfants, croyez en votre avenir, donnez le maximum de vous pour faire partie demain des décideurs. Chers parents, Certes, c'est un lourd fardeau que de subvenir aux besoins de nos enfants, mais sachez que plus tard, ce sont ces enfants qui vont soulager nos souffrances et nous décharger pour une retraite paisible, raison pour laquelle nous ne devons ménager aucun effort pour leur accompagnement. Enseignants, on serait tenté de penser que c'est un sacrifice que de choisir ce métier, mais l'enseignement comme la santé sont des métiers nobles dont le plaisir est de soulager les souffrances, mais aussi de façonner de grands hommes cultivés et instruits qui feront de notre pays un Sénégal émergent. Mes chers compatriotes et chers Québécois, nous avons voulu, par l'illustration des figures emblématiques de vos parents, donner des références aux élèves, mais aussi de mieux les faire connaître aux générations présentes et futures madame l'inspectrice en empêchement même na inspecteur collègue coordonnateur directeur des yëpp nous avons dit le maire de la commune en empêchement Ablaye conseil municipal chargé des affaires responsable politique politique góor ak jigéen mag ak De waa ci ah Kébé maire mën na ko tegal lii nag doon naa ñaan ñii nga xam ne mooy Abdoulaye Mamadou Sène Ablaye fan la ñuy jëlee autorisation mën a def bii ndax Kébé maire mën a seetaan bi film bii heure tàngooralu ne nañu programme bis boo xam ne bii danañu def li nga xam ne daañu ko seetaan nii foo mën a nekk écran géant ndax defe naa man heure bi ma nekkoon mi nga doog a nekk bi ma seetaane ñoo ngi leen di ñaanal yàlla sagal ngeen Kébémer waxuma la dara mais social bi ngeen def lii nga xam ni bu njëkk dañ daan jël ay kaye di ci def ay bëru lamb di ci def ñeneen ñoo xam ne référence référence boo ko ñu ñu ne leen fii mooy àlla jàll Kébé une fii dem te maire def na fii def na lii Ibrahima Bari mii moo doon jàngale alxuraan def na fii def na fii yooyu référence je crois que ni am na gën gënal boobu kon noo ngi ndokkeelaat amina madame la marraine déclaration bi nga xam ne loolu la wax jëm ci wér gi yaram jëm ci santé élèves yoo xam ne cotiser nañu leen loo xam ne mënuñu ko wan wane na ni lii lan def ren waaye bu déwénee dañu ñaan yàlla def ko foofu loolu nekk na loo xam ne kii nga xam ni moo yoree le maintien d'ordre yore la sécurité du département yore le maintien d'ordre du département bu ko defal lii defal ko ko président de la république te defe naa ne de la république dana ko ci bëtëm dana ko dégg ci noppam noo ngi santaat mbooloo bi yëpp di leen sant di leen gërëm di gën a encouragé waat le professeur Abdou Aziz Abdou Aziz yàlla na nga dem a dem a dem ba say ouvrage lii nga xam ne yaa ngi koy def Kébémer di ko wax ñëpp man kee jaa exploité ko continué di ñaanaat nag la jeunesse ñu roy boo gisee ñu wut kuy roy da ngay wut roy Abdou Aziz bind na def film yeneen doomu Kébémer nañu bind def film Kébémer rek lay ñoo ngi santaan mbooloo mi ñoo ngi leen di jégalu di remercier waat une de plus monsieur le préfet du département de Kébémer ci simplicité bi ci modestie bi ci xam ni président de la république moo la fi teg nga war a jaamu soxla yi lépp loo xam ni nit ñi bëgg nañ ko nga war a dem teel ga loola ñoo ngi leen di euh, encouragé di la ci santaat la gërëm di remercier waat une fois de plus la marraine mérité na ko andi na ay fourniture cotisé na andi na ay garab andi na yeneen lépp loo xam ne dana motivé nit ñi def na ko ci ñoo ngi ñaan yal ko yàlla fay yan baal ma. Alaaji Jaajo Mbay ci kàddu yu am solo yooyu bu yëkkati mbooloo mi teew yéen ñëpp nuyoo man leen ndokkee naan leen ci bés bu am solo bii lépp delluwaat rek ci askanu Kébémer ña fi nekkoon démb nañu nekkee woon nañu daan doxale nañu woote woon askanu Kébémer ñu waxtu euh, waxtaan leen ci ñoom saytu leen ñu def ci ñoom ay gëstu ba xam ñu ñu juddoo nañu màggee daara yoonu jaar école yoonu jaar formation yoonu am ba tey ñu ñu ñëwee toog ci boppu Kébémer saytu askanu Kébémer jàppale leen dimbale leen def nag ñooñu ay royukaay ay référence def leen ñoo xam ni dañoo bëgg bu ëllëgee élèves yi nga xam ne ñoo nekk ci jardin d'enfants yi nekk ci école maternelle yi nekk ci école primaire yi ba secondaire nekk sax ba université ñu jël ci ñoom ay références yoo xam ne boo liggéey Kébémer dootu wuti benn nit ñan jàng ci déw yeneen ku dëkk beneen dëkk Kébémer am na ay royukaay am na ay mag yu baax yu fi liggéey liggéey bu am solo tubarkàlla wël ba dugg nag bàyyi ci seen d'abord ñooñu nag lañu bëgg a jëmmal ñooñu a wane ba gone yi nga xamee ne ñoo nekk ci daara yi di jàng nekk ci école yi ak gone yi nga xamni ne dañoo toll ci bëgg aduna kenn ku ci nek am référence bo xamni ne da nga koy toog ni bu ma màggee ni la bëgg a suñu waajur wax na ko leen nga tuddu alaaj ali jëbi tuddu alaaj ibrahim bari tuddu cheikh ahmadou diop ak mam yu baax def nekkoon le ministre isa mbay sam ak ñeneen ñeneen ñoom ñoo xamni kenn ku ci nek koo ci roy di nga réussir ci àddina ta àddina réussir rek la ci ñooñu nag dañ ciy ndokkeelaat wa kaas wax nañ ko leen le professeur abdou aziz ten malay Mamadou Seck ak équipe bi nga xam ne ñoom la ñu àndal yëpp waaye ñoom ku leen gis xam ni yéen la ñu am bëgg bëgg la ñu am a wane askanu Kébémer ña nga xam ne ñoo fi nekkoon démb liggéey liggéey bu rafet bàyyi fi ñoom leen bëgg a wane waaye amaana doole ña ko doon def mooy ña ko doon def amuñu ko yéene bu rafet dañu am ak bëggul baax waaye jàmbaar di nga xamee moom it di ko ñor mooy askanu Kébémer am ay référence James Kébé maire bu fi nekk am ku ñu teg seen tànk am ku ñu xool seen bët te mooy mooy réussir bëgg bu fa àggee réussir bañ leen tudd bu nekk ci réew mi ak ci bitim réew ay sëtuloo mbër di jàmbaari bàq ay sëtuloo mbër di jigéen ju man ko ay sëtuloo yërëm lool askanu Kébémer tàmbalee ko ci ndaw ba ci jigéen ñi xool kaas lu am solo li nga xamee ni xalaat na ko bëgg koo jëmmal bëgg koo wane Kébémer gis ko bëgg koo wane ba bu ëllëgee yeneen réew jël yeneen i kay def fa seen doomi dëkk def fa seen magi dëkk yi nga xam ne ñoo liggéey gën ko loolu la ay sët loo bëgg a wan askan Kébémer bëgg a àndandoo nag ak waa Kaar lii ab tàmbali la teg seen tànk muy première fois waaye ba ñu jëm bëgg nañ buñ fa àggee Kébémer yëpp xam ne Kébémer am na ay doom yu yoo xam ne ku leen am ni doom dëkk bu ko am doo ko loolu nag dañu bëgg Kébémer yëpp ñaanal leen di wane ne nag kaas ubbil na buntam kep ko xamni ni ci terme li ñu bëgg moy ñepp anando bokku day bokku bay am référence boo ligé ñu réussir do ko Kébémer Kébémer ma ne dem ca kanam kon ñoo lay doké la présentation bi suñu waaju alaaji dajé def na ko légui ñi fi tok ñepp askan bi yépp ñoo ngi dañi sapp sant ñoo ngi dañi gëre gërëm dellu rek nuyu njaboot Cheikh Ahmadou Diop di tok Cheikh Baye Cheikh Diop ngi ni andal rakam Serigne Amadou Diop ci barka la ñi ngi leen di nuyu waa alaaji Amadou Diop bu naa ma nga ne nga ne toog ñoom ñëpp Abdou Samb waa Kër El Hadj Ibrahima Mbéri ñu ngi leen di nuyu di leen ziar Baro waa Kër El Hadj ak askan nga xam ne ñoo fi teew yëpp leen leen nuyu te di leen jaajëfal ñu ko waxee toogaay bi tey bare dañuy jox nag coordonnateur CAS di euh, kuréel ñi nga xamee ni ñoo amal lii ki nga xamee ni moo yor seen kàddu di coordonnateur ba di Balaye Sène di di kenn koo xam ni euh, ko tàcc ko sargal ko ndax liggéey bu am solo boo xam ko fi moom la ñu def tamit voilà. donc maa ngi jaar primaire dégg nga maanaam euh, Aliou Thiam. moom it maa ngi leen di jaar. Monsieur le Président, Monsieur le directeur d'école, Mesdames, Messieurs les parents d'élèves, chers élèves, c'est avec un immense plaisir que je me retrouve devant cette auguste assemblée en ce jour marquant la cérémonie de remise des facultés scolaires organisé par le cercle autour de la solidarité dont je suis le coordonnateur. Le cercle autour de la solidarité est une association regroupant des enseignants et de bonnes volonté de sexe différents créée depuis 2014 et qui œuvre dans le domaine de l'éducation et de la santé et qui parle de l'éducation et de la santé parle de solidarité. Depuis sa création en 2014, le Cercle autour de la solidarité organise chaque année des cours de vacances sanctionnés par la remise de fournitures scolaires. Mais aussi, les actions du cercle ne se limitent pas à ce niveau. Le cercle de la solidarité a fait adhérer des familles à la couverture maladie universelle. Cette l'édition de la remise de fournitures scolaire de cette année présente un cachet particulier. Parce qu'en tant qu'enseignants, nous nous sommes dit qu'il est temps de changer, de changer les manières de faire, de changer les comportements, mais aussi de donner des références à nos jeunes frères. C'est à partir de ce moment que nous nous sommes dit, nous allons conceptualiser des cahiers dans lesquels on va essayer de mettre sur les pages de couverture des références. C'est comme ça qu'on a pu 10 personnalités qui habitent la commune de et on les a mis sur les pages de couverture accompagnées de leur biographie. Parmi ces personnalités, on peut citer le député maire Paul à Alun dont sa famille est représentée. On peut citer le ministre Feu Alouta. On peut citer le ministre Feu Issam on peut citer ma Madeleine Nia, On peut citer notre défunt regretté Aloum Fa, qui est enseignant. On peut citer El Haj Aloum, euh, On peut citer Serine Mustapha Diop. On peut citer Serine Talakia, mais aussi Serine Ibrahim Sam. Le dixième pays, on a pris ça, on a symbolisé ça par Kérémère. Donc on a pris la carte de Kérémère et on a essayé de faire un petit résumé sur les différents maires qui se sont succédés dans la commune et les personnalités qui ont marqué l'évolution de l'histoire de Kérémère. Donc comme c'est prévu, nous nous sommes dit que comme c'est une première édition, on va se limiter à ces 10, à ces 10 personnalités. Et l'année qui suit, on va prendre d'autres. Donc, concernant la marée. Nous lui témoignons une reconnaissance sans faille, Madame Aïssatou Longo. Il faut le signaler. Notre rencontre avec la maman n'est pas pour si je peux m'exprimer ici. Parce que nous sommes allés chez elle, c'était pour rendre visite à, je peux dire, un camarade de promotion de Abdel lors de la partie de son repris de prêt. Mais comme Madame Aïssa Toulon habite la maison. C'est par les échanges qu'elle nous a dit qu'il faut aller voir Madame Aïssa Toulon. Et nous nous sommes vus. mais comme le cercle c'est une affaire de cœur, elle nous a accueillis à bras ouverts. Et nous avons discuté, nous avons échangé. Comme nous serons pour la solidarité, et aussi toutes ces actions allant dans ce sens, vraiment, euh, cette rencontre ne pouvait que se terminait par cette belle collaboration. C'est comme ça que nous l'avons choisi comme avec du cercle et elle nous accompagne, elle n'hésite pas à nous accompagner à chacune de nos actions. Vraiment, je demande au public de l'applaudir encore une fois, de l'applaudir encore une fois. Donc, nous sommes présente pour terminer, parce que ça aussi, ce n'est pas facile, avoir une autorité. Euh, nous tous, nous savons les occupations du moment. On sait que le préfet n'a pas beaucoup de temps parce qu'il a un est très chargé. Donc si il nous accorde un peu de son temps, nous pouvons que lui témoigner aussi une reconnaissance. Vraiment, nous vous remercions par rapport parce que je n'ai pas, préparé un discours, mais je voulais, je voulais, je voulais, aller plus loin. Donc pour terminer, peut-être je vais vous signaler qu'en dehors de ces fournitures scolaires, parce que nous avons décidé de primer 15 élèves par école. Il y a 14 écoles dans la commune et nous allons primer 15 élèves par école. Nous avons pris l'engagement aussi de faire adhérer 120 élèves. je dis 120 élèves. Il y a aussi les, les, les, les, qui, qui, en font partie. Donc 120 élèves à la couverture de maladie personnes et prions pour que l'année prochaine,

dañu bëgg élève bu ko jot lire seen biographie manam seen jaar-jaar ci walu aduna bi ñu jëlo bi ñu jaar ba bi ñu réussir élève bu ko ci lire ba noppi nga jël ki la neex dem ki nga xamé ni réussir na saf na la neex na la nga def ko sa xol def ko sa xel jël ko muy sa référence nga ci yoon bee tegu ci yoon mu jur yoon nga xam ne mooy neex seen ba bu ëllëgee loo màggatee mu mën naa def ci kay loolu lañu bëgg ci élève loolu lañuy xaar ci ñoom ko dañ ko gor def ko ba bu ëllëgee ñu am ñu ñoom

am empêchement pour y mu yabal ma pour me représenter monsieur le préfet ñu lay nuyu di nuyu nuyu représentant du président du conseil départemental madame Aïssa Lo il koy nuyu docteur Babou, ñu koy nuyu di le représentant de l'IEF Ababa Sy di nuyu aussi

yaakaar naa ne moom ay jëfam di ko wax sax yaakaar naa ne répétition lay doon lu ci benn El Hadj Aliou daal koy def xale yi xamuñu ko mais à travers lay koy di ngeen ko xam kon li ngeen def yaakaar naa ne am na solo ku ci mel ni Madeleine Niang El Hadj Ablaye Sène Aliou Fall Serigne Moustapha Diop Serigne Ibrahima Mbéri Sam Serigne Talla Dia yaakaar naa ne ñun ñëpp tey jii ay référence lañu. xale yi bu ñu leen kay bu ñu xoolee ci ñooñu yaakaar naa dinañ gën a góorgóorlu te xam ni am réew mënul développer sans éducation parce que Nelson Mandela daan na ko wax li tabu bu rëy bi nga mën a jox sa doom mooy nga jox ko une bonne éducation kon nag parents yi taxaw ci seen doom yi ngeen fexe bañ am une bonne éducation pour ëllëg ñu nekk ay cadre yoo xam ni dana mën a wutu ñii mën a taxawu Kébémer Kébémer jëm kanam parce que Kébémer bu jëmee kanam ñëpp le jëmal kanam parce que certes autour de la solidarité muy loolu dafa nuyu turam dimbalee parce que lu am solo la kon yaakaar naa ne li ngeen def am na solo dañu ci remercier bu baax une fois de plus di remercier docteur Aïssatou moom mi nga xam ne mooy seen parce que yii ñu am solo c'est à pérenniser à cas d'autres actions peut-être vont suivre te yaakaar naa ne incha allah dinañ ci mën a bénéficier pour waa Kébémer di remercier encore une fois de plus monsieur le préfet sa disponibilité parce que yu mel ni dafa am solo di ci téw en tant que le représentant de l'exécutif yaakaar na ne monsieur le maire kontaan na ci le représentant de l'IEF mo fi nga mo yif département du tour dépp jang ni té te mo na fi solo kon di ko di remercier bu baax di ñaan yalla nga xam ni dañ leen a fi ci kaye yi yalla leen yalla yërëm xaral ajana te xam ni ay référence lañu xale yi buñ jëlee kayit dañ leen ci jàng moo gën nga jël ay kayit dañ ci def ñoo xam ne daanaka duñ ay royukaay kon nag lii ñu def yaakaar naa ni lu baax la lu maire en tant monsieur le maire mi ngi koy rafetlu bu baax a baax di ñaan yàlla lii ñu pérenniser ko dans notre commune pour vraiment ñun ñëpp ñu sant bu baax di ñaan yàlla ñu am une année scolaire paisible année scolaire bu jàmm ba xale yi mën a jàng jàng mucc ayib ba ëllëg parents yi nga xam ni. dépense yi ñu koy def ci xale yi yaakaar naa ni ëllëg lu mën leen a wuutu parce que parent bu ne war nga préparer sa doom tey jii pour ëllëg mu mën a teel tekki dara parce que bu ñu toog fii sama doom mënalu ma ko dara il faudra préparer léegi nga jox ko une bonne éducation pour ëllëg ñoom ñu nekk ay kilifa yoo xam ni dana leen mën a cité comme ñi ñuy cité parce que yaakaar naa ni amoon na benn doomu Kébémer boo xam ni il fut président de la république maire Abdoulaye Wade doomu Kébémer la kon yaakaar naa ni bu ñu woon am njàng du mën a nekk président de la république du Sénégal docteur Aïssatou Lo muy toog tey nii bu fekkoon jàngul bu mu nekk une pharmacienne bañ koy jox tey jii pharmacie de l'approvisionnement kon docteur Aïssatou en tout cas lii nga def wane ni doomu Kébémer nga ñu la ci remercier encore une fois de plus au nom du maire donc dafa guddi bu bëri guddal ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum jërëjëf jërëjëf Abdoulaye Gueye représentant du maire ñu koy sant di ko gërëm di sant monsieur le maire El Hadj Mamadou Lamine Thiam tubaarkàlla ci taxawaayam ak équipe municipale yi mu àndal sargalaat bu baax a baax monsieur le préfet du département taxawaayam ci Kébémer askan bi xale yi gën a ndaw ba leen laajee ñu wax la yërmande taxawaayam ak koy sant di gërëm te di ko ñaanal. jël na kaddu gi di jëppal marraine bi moom du marraine liñ koy wax marraine xam ni dina ko xaw a gêné tuuti waaye dafa wëlbatiku nekk membre ci biir cercle bi dafa wëlbatiku doon doomi kenn mer ànd ak waa cercle bi di liggéey dafa ci yëngu di solidarité ci social mu futteeku takk ndigal bëgg a ak di liggéey dafa tollu nag ku la ko bëri tudd moo tax ñu naan marraine waaye en tant que dafa ñëw en tant que membre dafa ñëw en tant que doomu Kébémer dafa ñëw ngir jàppale ay doomam xam ni école ay doomam ñoo ci nekk ay sëtam ñoo ci nekk ay départam kon bu ëllëgee bi mu taxaw di Abdoulaye wax léegi le président Abdoulaye Wade amoon am ko Aline Tall am ba bu nekk ci école yi awal nawra ñu jàng boo ëllëgee ñu am loolu moo tax bu ñoom ndax maren dafa am bu mu yàq bu la tuddee bis boo ñëwee te bis ba da koy daal di liggéey waaye ba mu jàppanteeg waa cercle bi ba tey boobu ba tey bawul dafa ànd ak ñoom di liggéey moom nag dañu bëgg a jël kàddu bi jox ko ndax yëf yi nekkoon ñu war a jël kàddu yëpp mu nekk ñi yeer ak ñi nga xam ne ñoo waroon jël kàddu yëpp dañu suñu kàddu jël nañ ko école yi dugg ci daara yi def ñu moom kenn ku ci nekk kenn la yàlla dégg dimbali askanu Kébémer bu boobaa jàng Kébémer ñu liggéey ca kanam doomu Kébémer dina jëm ca kanam askanu Kébémer dina jëm ñoom loolu dañu woo doomu Kébémer yëpp ñu ànd ak loolu bokk ndey bokk baay liggéey jëmale ko ci solidarité ay bi xëy na lu mu néew néew bu leen ci jàppalee dina am fu mu leen féete moo tax ñu def ay yére jënd quelques cahiers matériel géométrie teg ci ak ay bi ak ay crayon jox ko parents yi pour jàppale leen ko ci démarrage année scolaire beneen part partie bi mooy couverture maladie universelle man dañ naan bala nga ne naan dafa wante aussi balaa ngaa jàng dafa daa wér donc wér gu yaram mu doon lay def nekk lu am solo moo tax moom ñu xalaatoon ne bu ñu tuddee téeméer doom ak ñaar ko bu ñu ci couverture maladie universelle bi ñu seetlu seen wér gu yaram dina gën a mën a tax ñu jàng jàng bu mucc ayib ñaan yàlla année scolaire bi doon année scolaire bi jàmm salaam bu ànd ak dal dana am benn tournée comme ni ko sama frère waxee tey ñu ci des ñu ñoom rek ñooy doom PNL mais dañu tànn ñooñu première édition def leen couverture de page comme ni ko mu doon rek wàññi xale yi xale yi kat am nañ fu mu war a roy am nañ fu mu war a roy loolu moo tax ñu def loolu ñu ñaan yàlla bu déwénee action yi ñu def ñu gën ko yaatal mais li koy sos yëpp mooy Abdou Aziz Kane nga xam ni moo jël livre bind ko ci xam-xamam ak xalaatam ni lépp lu ma ci jëlee dama koy defaat ci biir solidarité daal di créer moom ak ay xaritam cercle autour de la solidarité def ma ma nekk seen mari ma koy rafetlu bu baax a baax cercle autour de la solidarité am na ñoo xam ne ñoom ñëpp ñoo ngi contribué ci seen xalaat pour wasal wax ñu yónnee seen participation loolu moo mën a tax fii tey ñu am donc ñu ngi santaar ñëpp di gërëm ñëpp di ñaaxaar way yu riir di ñaaxaar ndongo yi ci biir toppatoo seen wér yaram toppatoo seen njàng ndax kat gannaaw yàlla loolu xanaa rek jigéen ñi dama leen ci gën a ñaar ñoo ngi di toog sama mbokk jigéen ñi yàlla nee na umul madrasa bi école bu njëkk mooy jigéen ñi góorgóorlu na système njaboot góorgóorlu système njàng góorgóorlu système wér-gu-yaram bu ëllëgee xale yooyu mën leen noppal ngeen mën a am tawfeex loolu dañuy santaat ñëpp gërëm ñëpp di ñaan yàlla bu déwénee ñu fekk waat ko defal ko ak yeneen action yoo xam ne programme di primer pour encourager leen ba pare ñi nga xam ne aussi ñoo nekk ci suuf ñoom ñu mën a roy ci ñoom bu ëllëgee ñoom ñu donc loolu daal moom suñu daje tey jii di leen santaan ñëpp di gërëm rafetlu seen taxawaay. su ñu nee ci cahier bi monsieur le préfet dañ yi xam bu yeggee dina ko mën xam lu ñu liggéey lan la rafetluwaay taxawaay bu baax di ko bu baax di ko gërëm. jërëjëf la ma rek ay seetlu loo kuréel yi yëkkati kàddu noonu. pare nag ñuy def première remise bi di remise symbolique bi ñu remercier monsieur le préfet du département El Hadj Madiop Ka bu àggee kare yëpp dina ko mën a xool yéeg ko xam gaa yi ñu jëm ñuy ñaan rek monsieur le préfet moom la ñu jël nag kàddu gi jox ko ko mu waxtaan nag. Euh, mbokk yi asalaamaaleykum. wa rahmatulaahi taala wa barakaatuh

Madame la Présidente du Conseil départemental, Madame la Secrétaire élue, le président Modigan Fada, nous, yeneen kilifa yi fi nekk nous nuyu d'école yi principaux de collège nous enseignants et toog yëpp te di qui nous ci bisu tey bi waaye maa ngi beral nuyoo docteur Aïssatou Lo waa cercle des amis autour de la solidarité Il est donc elle qui bi ak jëf bu rafet yi ñu def maa ngi kontaan bu baax ci ñoom ndax dama jàpp ni lii ñu def tey defal ko lekkoolu Kébémer defal ko doomi Kébémer defal ko ay waajur ndong yu Kébémer dama jàpp ni man préfet lañ ko defal démb rek ci fàttali ñoo ngi woon Mbacké ay xale doomi Kébémer def benn caravane ci weeru safara bi ñu ne pour dem ndokkee ni Serigne Saliou moom Serigne Khadim Awa ñu def tour dëkk bi dajale seen ay li ñu am ak li amul dajale seen ay ndimbal togg ci ay berne yóbbu ko ci daara yi alxuraan yi ba pare ci ngoon si ñu dem siyaare ji sëriñ yooyu su ma koy dund euh, du ma xam ci ban état laa lii ma fekke tey benn la ci man docteur Aïssatou woo na ma bu yàgg ni ma dañoo bëgg def benn geste

réussite bu fi nit am rek daañu ci boole le préfet de département waaye ñaan ñu ko yàlla safaan bu amit daañu ci tudd préfet département de Kébémer ndax xam ne bi léegi réseaux sociaux yi dañoo développé taw bu dara xewee rek ñu naan ñoo xam ñu daal di koy wëralee àddina si te noonu ñu koy wëralee àddina si sama collègue yi nekk yeneen département yi dañ koy gis commencé wooy booy affaire yi mu demee nii naka naa su ma sañoon nag lépp lu baax lay doon nga xamante wax naa itam ne su ma sañoon département de Kébémer bii benn département du ko féete kaw ndax man sama promotion ci la ne dañu may jugé ci li may liggéey ak résultat yi sama service yi di am kon bu fekkente ni état du Sénégal. dafa un vaste programme d'appui des familles en termes de fournitures scolaires li may wax directeur d'école yi xam inspecteur yi itam xam na loolu état def ko ba madame euh, docteur euh, collectivité locale yi une fekk si ci état le maire déroule un programme d'appui pour les fournitures scolaires ba pare di écoles et école ci fànn yu bare

ay sëñ kenn naa ci wax ngeen kon ngeen teg bay bay voilà merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup am ngeen tàcc lu tax bu baax gis nga daje yu mel nii am nga ñu ne ci biir ñoo ngeen nelaw dégluwul li nit ñi wax li ñu wax dañoo sonn su ñoom ñëpp a yeew te itam. yéen suñu bëree lu baax ci nit nga tàcc ko. yéen seen préfet nii la doon nekk de sawar nga koy dolli cawal bi. ndax tàcc bu baax na bu leen ko bàyyi da leen tàcc. vraiment damaa dem Cheikh Yacoub yaa ngi fi woon li ma demee ci récital récital Coran bi ñu doon def ci kër Serigne Touba bi xale yi tari tari yu rafet. ay xale yu jigéen ba pare ustaas yi bu kenn tàcc ma ne ko waaye ustaas nañ tàcc waay nañ tàcc tàcc waay mun na alors léegi nag li tubaab di wax cerise sur le gâteau cerise sur le gâteau mooy euh, euh, njukkal bi njukkal bi kaye yooyu ñu jox xale yi dañu tànn fukki doomi Kébémer vous l'avez bien précisé fukki doomi Kébémer yi nga xamante ay figure emblématique lañu manam ay kilifa lañu ñu fu tekki dara lañu ñu fu def dara yi nga xamante ne ay royukaay lañu ñu def leen ci couverture kay lolu amna solo trop suñu ko waxe ak suñu ko waxu gis nga ñi ngeen def seen figure mbokk yi ci kay yi nañu trop kontan nañu trop te siggi nañu ci bu dem ngeen sax ci benn kaye bi moom euh, maanaam département Kébémer ngeen ci def schéma bi kii bi carte bi voilà carte bi ci gannaaw ci gannaaw fii ñu def ci doomi Kébémer yi nga xamante ni bokk nañu ci histoire Kébémer am na lu ñu construire waaye nag ëllëgee na ngeen boole ñun ñi nga xamante ni doomu Kébémer la waaye dañ ci enchère dañ leen juddoo rek doy waaye fi la ñu dëkk sunu soxna yi fi la ñu nekk sunu doom yi fi ñuy jàngee te itam ñoo ngi góorgóorlu na fi jiitu lu baax ci Kébémer te xam leen na leen bàyyi xel na lu ñu fi représenté ci dëkk bi ah euh, dafa yem fukk rek waaye defe naa ne yii di ñëw yii di ñëw dana am photo euh, euh, Serigne am sa sam dana ci am waaw dana am dana am photo itam Serigne Sadio Awa dana am photo la famille chérifienne ainsi de suite ainsi de suite mën na continuer sax ba tracé kaye yi ana professeur yéen may dégg kaye yi mën na retracé l'histoire de Kébémer te xam ngeen ni Kébémer am na histoire am na histoire bon fi may mujjee mooy kontaan bu baax ci les cadres de Kébémer xam nga sama nijaay sama nijaay daf ma woo maag sama mag ba nu ñëw mu ne nu na ngeen góorgóorlu ba am kër fii ci dëkk ndax dara yéesul nga jógee dëkk ñëw ci dëkk bi nga cosaanoo sa dëkk ab sax la ma wax sa dëkk ab baay yi nekk fi ba timis ngay jaaxle fu ñuy fanaan wala nga leen àbbal fu ñuy fanaan kaadam kebe meer yi ma ne xam naa loolu dalu ne parce que ñoo ngi dellu secrétaire élu yaa ngi ci suba ci réunion bi slogan wu aller moom benn ci slogan yi mooy tekki fii tekki fii ah loolu mooy suñu góorgóorloo ñun ñëpp potentialité yi am ci département bi mënoon nañu fexe émigration dootu am Kébémer. parce que li ñu fi soxla yëpp ñu ngi fi suñu góorgóorloo bu baax rek mën nañu fexe créer ay emploi créer yu téye sama xale yu yi li ma waxoon léegi mooy kaadam tefe maire yi maa ngi leen gërëm di leen sant ndax initiative dafa bare ah ma fi fekkee moom gis ko depuis Kébé Santé ba Kébé Kamp ah bi ñooñu ñëpp ñu gënoon ma

mais nag nga ci administratif parce que yow ci sa bopp da nga bokk ci arsenal gouvernement bi xam lan mooy njàng te nga nekk modèle nag te nga nekk modèle daa ne bu demee bay jeex yow la nga ci nekk waaw modèle dafa jàng takk sërëm di jàng di ñettee xale yu góor ba am doctorat nekk pharmacien président Macky Sall xool ko wóolu ko dégg ko poste de responsabilité loolu mooy ma def laaj ma def ba pare nga am loolu yëpp nag mënoon dem grand théâtre gars yi déglu leen la grand théâtre wala foofu wala sonal ma yëpp benn la mooy foofu gars yi dañu jëfe nii nii Thank you. lii mu dajale nii c'est de l'argent kii boo ko defoon ay 5000 5000 5000 di nga baat rek ba sonn mais foo koy baat rek sur biir néant pour li nga xamante ni yàlla gërëmu ko yonent bi gërëmu say mbokk duñ ko gërëm nga dajale yooyu yëpp sacrifier war jar na booy ko or waaw nga sacrifier loolu yëpp nga naa dellu Kébémer naa dellu samay mbokk. naa dem ci xale yi Kébémer yi nga xamante ni ñoo ngi toog ci école wala ci classe yi ma doon jàngi fekk leen foofu bu mën leen c'est une action très noble. léegi rek ci sama bureau ak Pa Diagne Mbaye maa ngi lay wax ni activité bii moom dina dugg ci rapport bi dana dugg ci rapport bi te ñuy def dafay wàcc ci table gouverneur mu def synthèse. mais activité phare bu ci nekk daf peut reprendre obligatoirement activité phare département qu'il y fekkee une distribution de fournitures scolaires aux enfants de l'élémentaire daf reprendre mu avons ci le ministre de l'intérieur Le ministre de l'intérieur directement présidence de la république directement comme amul feneen la preuve beneen doomu Kébémer ñoo bokk dëkk bi muy Pape Seck Pape Seck mooy professeur administration du patrimoine dafa tabax ñaari classe pour lycée bu Kébémer ànd ka ak ay partenaires ak ay xaritam ak ay mbokkam ñu ci def seen xaalis yi mu dajale ak tabax ñaari classe mettre ko à la disposition du professeur du lycée ñu ñu ko yëgee te moom moo ñu ko yëgal comme ni ñu kii yëgale ko dugal ci rapport gouverneur seppi ko bind ministre de léegi bi nga ministre de l'éducation bi nga félicité mu ngi si wàllu loolu moo loolu mooy def bu baax couverture maladie universelle njëriñ bi ci yëpp nga xamante ni état bi pratiquement daf ko subventionné mu am ay ay ay ay xéewal yu bari yu ci nekk tey jëm di ci jamono bu nga xamante ne jamono bu métti ñi nga xamante ne wéewu léewu rek dañuy tàllal seen loxo sax yenn saa yi ñoom borom maas yenn saa yi ñu am bu leen jaaxal nga inspirer naa ni ku la defal loolu jàppale na la. dëgg la donc encore une ñu ngi ngeen di def euh, waa cercle bi yéen dama leen encouragé dama leen féliciter ndax da nekk dundu yoon dundu yoon bu laa xamante mën na leen yóbbu ci teraanga bu nekk parce que de toute façon yàlla moom moo ñu tiim ñun ñëpp fekkente ni lii ngeen def ànd ak ak docteur Aïssa parents d'élèves yi gisuñu ko enseignants yi gisuñu ko directeur école yi gisuñu ko préfet gisu ko maire gisu ko kenn gisu ko itam yàlla moom suñu borom gis na te kenn mënul mu fay. yàlla bi mu yore soxlawu ci dara la mu yore boo fa doon jógee di fa jógee di fa jógee di fa jógee dafa mel ne dara jëlewu ci woon kon kenn mënul tey yàlla tey kon na ngeen doon góorgóorlu borom kawar bu ñuul ngeen vous avez toute la vie na ngeen góorgóorlu abnégation bi ngeen àndal désintéressement bi ngeen àndal na ngeen ci jàpp bu baax te may ci benn mën ngeen ko yàq benn mën ngeen ko yàqal mooy ngeen kër gi ko su ngeen ko defee lu ngeen mën ren bu mooy seen ndey xëy na bu ëllëgee dana am ñeneen ñu mu kopte ñu ñoo jàppale ko ci ndeyale yi affaire bi day gën a day gën a fóor rek ñu euh, euh, mooy ndey yi waaye nag xale yu ndaw yi jàng ah xale yu ndaw élèves donc tous les bénéfices aux enfants les efforts et les initiatives pour l'année maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum mënoon koo def dama koy séddee dafa indi ay matériels yu bëree bëri woo ma ni ma am naa ay basak am naa ay alcool ak loo xam ne mën naa dem ci daara alquran yi dama bëggoon ñu cité daara yi nga xam ne foofu la mën a dem ma ne ko kon nañu tàmbalee sëñ bi bu ñu demee ba remise ba mën nañoo woo rajo yi ñu def reportage boo xam ne nii wax nii ak nii ak nii ba ñu koy defee dama ko doon wax politique taxuloo damaa bëggoon mu nekk jëf bu baax bu siiw yoo xam ni bu ëllëgee yeneen doomi Kébémer dañ koy jàngat dañ koy dégg ci rajo bi xam ni jëf bu baax la te jëf bu baax jar naa toppandoo ñu toppandoo mun ma déedéet lii bari te ba naan ma bariwul nekk na lu bari loo xam ni daara ñoo ko jox mu jariñ la mu jël ko toog ànd ak ñoom war a àndal yóbbu ko ci daara yi def ko rek te yàlla tax

benn bi mooy film pour euh, film documentaire bi gis léegi ki ko réalisé mi ngi woon fi mooy Mori Mara production dëkk fii Kébémer man a ñëwal wax dëgg fa yàlla euh, Marème xam na dajale ay photo ay message whatsapp ay image lu nekk fexe ba produire film documentaire une heure trente minutes dañ koy félicité di ñaan waa Kébémer yëpp ñu xam mu xam ay activité ñu ngi fii Kébémer beneen bi mooy

jël seen lépp en teg ñu ne ñoom ñoo fa def ba leen mbir mi yegg si fii beneen mooy doomu Kébémer ñu naan ko Mbaye Fall production moom aussi dañ koy sant bu baax ci liggéey bi ñu def ci ci mbir ndax ñu ne mu ñoo ko songandoo am confiance ci moom ñu dem ba ci digg bi suñu borom def ci mu amoon ndax li ma wax lépp ñu ko liggéey waa Kébémer lañ dëkk ba jiitu ko ba léegi nii ñoom day jaar bu mbooloo ñu teewee ñu ñu ñu ñu fesal seen jàppale ba mu jàppale di di nuyuwaat ñëpp di santaat ñëpp di gërëmaat ñëpp di jégaluwaat ci kàddu gi ma jëlaat. du mën a woo élèves yëpp mais dañuy woo rek directeur école bi remettre ko ko liste yi élèves yi ne ngi nii xam na leen ñu a ko jox ko élèves yi mais jàpp naa ne mu toll ci deux cent wala trois cent élèves bu la naree woo fii benn par benn di leen jox duñ fi jóg loolu lañ doon wax ñu ngi sant ñëpp di gërëm jërëjëf. jërëjëf Mamadou Sène jërëjëf Mori Mara. ñu ko xam ci mamoricain bu bu Boubacar jan di def liggéey bu am solo boobu ni koy sant di ko encourager ci di ko ñaanal bay fal production ci liggéey bu am rek am solo bi mi def ak Pape set commerçant marché central Kébémer ni ko Mamadou Sène waxee toogaay bi de dañu tudd nak ci rek liñ kalu euh kalu bu njëkk bi monsieur le préfet mom mo koy jëmbal directeur école Tombi dañu mo rek directeur école bi mu ñom jël léegi yépp ne ci élève yi nga xamni ci mu ñom bu ñu demee dina leen jox doy euh, bu naa mo jox directeur école tool bi sanam ñi préfet asalaamaaleykum mbooloo non non c'est important dama ñaan rek xale bi jox ko ko kan kaye ci ngay jiit mais dama am benn proposition bu may def boo xam ci nga xale bi gën a mën a jariñoo kaye wax leen ne dans deux mois xale organisé un concours boo xam ne personnage yi da ngeen di poser ay questions xale yi ko gën a trouvé ngeen récompense waat loolu su ngeen ko defee il faut que am na jour ñu merci. merci vraiment. mbooloo mi ñoo bëgg ñëpp toog jeex na ba pare euh, école Jami école Jami conseil départemental moom moo leen di jox seen cadeau ñu ngi directeur bi mbooloo mi dañu toog ren bi dafa lay doon des. photo de famille madame la secrétaire Elie moom moo représenté monsieur Mandane Fada mooy joxe cadeau boobu. এখন জাপিল করেবেন Grete Ecolja. Ecolja. Grete Ecolja. Monsieur le représentant du maire, vous pouvez remettre Taloubi. Applaudissez le président de la commission domaniale, Ecolja. Représentant Ecolja. dégg nga représentant école Dakar directeur école Dakar IEF IEF ñoo koy jox kàddu boobu école Dakar ekor Papa menuju jauh, ekor Papa menuju jauh, kami monsieur le ministre sampai Samba Samb moom moo kami jox kado boobu famille Issa ekor Samb moom mooy joxe jauh, Papa menuju Diaw Papa Amadou Papa

ñooy jox école Cheikh Ibrahima Faye école 2 représentant école Cheikh Ibrahima Faye loolu ñan la est-ce que moo représenté école Cheikh Ibrahima Faye foofu dañaa ne ne sax ñu jël pour la famille bi président école Marma Jigéen Kébé le président école Marma Jigéen Kébé famille El Hadji Ibrahima di Samb moom moo leen ko jox représentant école Marma Jigéen Kébé Marma Jigéen Kébé famille El Hadji Ibrahima Samb moom moo leen di jox kàddu boobu

Famille Alifal Fall, on va dire qu'elle est Alifal, Famille Aline yang Famille Aline Fall. location. Represent my echo location, application, modern element technology. Represent my echo location, application, application, modern element technology. Deep alternative circuit B. Your operation, operation, modern element technology.

merci beaucoup de Bapak. vers soxna Anta Diaw mooy jël kado boobu ñu ànd ak Ablaye Gueye représentant famille Samba Samb yëpp madame kenn Demba moom moo leen jox kado bi di kaye nga xam te mu ñu dem monsieur le monsieur le maire dina jëm ci témoignage bu rafet boobu Papa Issa remet kal boobu famille soxna bi nag remet di Proyek Ibulen program desa kami energi talajah kami seri talajah berkala Lapanen Dr. Aisyatullah memulai jokan bobo monsieur le ministre El Hadji Aliou Tall Mamadou Seck de la région moom moo leen di remettre kàddu boobu Mamadou Seck mooy remettre kàddu bi di leen nataalu El Hadji Aliou Tall monsieur le ministre. Sering Ibrahima Samb représentant yi yëpp mooy joxe cadeau boobu famille Serigne Ibrahima Samb représentant yi di

dapat kembali dijuangkan bom kami Alifah Abdou Aziz Diagne Mamadou Sène ak Falaye Sène ak ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal liggéey bi yëpp ci initiative bu rafet bii liggéey bu am solo bi nga xam ni tàmbali nañu ko nekk ci yoon woon ñoo leen di félicité di leen gërëm te di leen ñaanal waaye di ndokkeel ak di gërëm la marraine docteur Aïssatou Lo ci jàppale gi taxawaay yi ak lu am solo li nga xam bi koy def ko ak

remercier encore une fois monsieur le préfet du département jox Cheikh Baye Cheikh Diop mu defal ñu naan ñu tëj jotaay bi Cheikh Baye mi ñu jox Cheikh Baye Cheikh. di leen xamal nag lii ñu fi gis tey lu rëy la te lu rëy lu nekk suñu borom bu moo gën a rëy te dana ko fay te yaa ngi def lu baax te yàlla rek tax yàlla moom la ko defal kër yi ñu tudd kër yi ñu tudd ak ñu war a da ko defar parce que TMA ñun amuñu lu lu dul tamit suñu xarala ñu ko yàlla moom moo leen ay royuwaay xool ni boo jëlee li ñu bind ko ñu xool ko danañ ci tegu ci loolu jàng la yàlla yàlla dimbali bañ tegu kon si garab yi nga préfet ni la préfet lu wax li mu wax lu mu jàng boo jàngee sóoru boo jàngee sóoru du yàlla suñ borom mi ngi koy wax aouzu billahi mina shaytani rajim bismillahi rahmani rahim allazi jaala lakum mina sajari al-akhdari naaran fa idaa antum minhu tuuqiduun nee na garab da ngeen koo suutal man ma leen koy màggaral def ci ay njariñ njariñ nag lépp njariñ la danaa ko màggal ba mu màgg di ci jëfandikoo wala wala muy garab boo xam ne nii lépp lu ñuy sos rek fa lañ koy sos kon soxna si li nga sos nii yal na la yàlla digil ba nga ko xéewal garab boobu yàlla wax te yàlla ñu neen garab boo defee ay xéewal ba pare bu ma ko reyee ci laay gën a def ay xéewal ñu daal ne ko xéewal yooyu nan lay demee mu ne ci ngeen jël xeetu matt yi di ci doom di ci xéewal kon loolu wér bu ma demee ba def ko matt nag damaa ci génnewaat yeneen xéewal ñu ne ah mais comme suñ borom yow rey ko ko ñu taal ko ba mu taal nga génnewaat yeneen sëriñ xéewal mu ne yeneen xéewal yoo xam ne dana indi yeneen njariñ ñu ne lan la mu ne këriñ bi la xeetoo mu ne bu ngeen bu ma demee ba def ko këriñ tamit ci laa ci gën def nag ne ni yu kiimaane la ah yàlla léegi léegi moom dem na ba nekk mat jóge nekk na këriñ léegi nan lay nekk ci mu ne laa koy def doom boobu yàgg ngeen a dégg booba jamono ci avancé gul nii soxna si lii muy liggéey wala Ibra Baabu ñi nga xam ne ay médecin la ñu wala sa xol di métti ñu ko kon waxe yàlla di mu tefeg yooyu yu jëral nag yàlla wax ko yàlla nga fekk teew te tamit insha allahu képp koo xam ne ni yaa nga xam ne moom borom dimbal moom moo lay dimbal ñu war na ñun julli bi lépp lu baax lu ñuy def buñ ko commencé rek ko commencé ci ñaan la waroon a def du nañ ñaan si ñaanal ko ñaanal nit nekk ba kenn ku nekk li nga bëgg yow ko def ndax ñun ñu dëkk bi daal ñëpp bàyyi seen liggéey ñëw fii lu rëy la fi yàlla bu rëy woon bëri na ñoo xam ne ñëw ndax fekk defe na war nañ leen ñaan nañ ko suñu seytaane julli jël ka julli jël bi alayhi salaatu wasalaam def astafurlah ñett yoon yéene seen xol ñun ñi fi nekk ak ñi nga xam ñoom ñoo bëgg lu baax ñun ñëpp yàlla lu yàlla defal ndam kawe ni ko kaw a xam yomb na ko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 uh, par à Kend, Pas de vie. Aujourd'hui, les fruits de cette euh, vente, en plus des contributions, nous ont permis de programmer cette cérémonie qui est une remise de du scolaire aux enfants de 14 écoles de la commune. Dans chaque école, nous avons choisi 15 élèves, ce qui fait un effectif de 210 élèves avec qui nous avons appuyé des cahiers, des de géométrie, des en plus de cela, nous avons aussi pensé accompagner 120 élèves en les enroulant dans la professionnalité universelle, en leur payant la cotisation pour être prise en charge dans la CME. C'était ça l'activité d'aujourd'hui. Euh, comment concrètement vous les avez accompagnés cette année les, enfants ou l'association L'association, c'est tous les kilomètres. Il y a beaucoup de kilomètres qui sont là-dedans, en dehors de ces enseignants, de ce trio, de la de la Moi, étant la marraine, je les accompagne, un accompagnement financier, mais aussi avec des idées, comment faire pour euh, faire quelque chose